ci ndorteeluk ñaareelu mandaawam président Macky Sall daal di proposé ab loi ngir rek jëlee fii lile di postu premier ministre loolee tax ba ñenn ñi daldi jàpp ne lu ni mel président da ko def ngir rekk yokk dooleem waaye it di buur di bumi Pape Thiam di kenn ci ñoom ay atam war a toll ci ñeent fukk ñu taseek moom ci mbeddu Pikine yi li la ci xalaat. président bi ci campagne la jóge ba ñu fal ko campagne bi yëpp kenn déggu ci moo waxu suppression poste premier ministre donc su toogee ba ñu investir ko ba pare mu ne day dindi poste premier ministre bett na normalement comme décidé wona parce que du lo xamni daf ko décidé dans le temps xamna ni mbegoto nak bu yag donc su demee ba koy supprimer bi muy def campagne mënoon na ko comme ni mi doon waxé ni su ma kidee dinaa def li dina def li dina def lii mënoon nako su fekkente ni nit ñi wol nañ ko ci lool ñu fay après xam bu ñu sukkandiko ci merci du rek lu normal gornamang bu sénégal di tok té du am premier ministre ndax rek ki le di ñitum réew mi mënta matale fépp ni mako gis rek té lu mako té lool mënu la am parce que premier ministre adina di bax ba président bu tok am nga premier ministre

laaj bi daal mooy bu ñu ko dindee liggéeyu premier ministre kan moo ko war a def population du Sénégal luwaa ngir dindi premier ministre ci Sénégal indi na ay coow ak it werante ci biir réew mi waaye li ni mel terewul benn yoon li di majorité député yi daal di koy wootee ca assemblée nationale ci fàttali rek ci suñu biir constitution ñi ngi ci bind mu leer nañ ne li di pouvoir bi warta doon lu dul bu askan wi